asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñépp ñëpp foofu waay mën a nekk tey nag dañoo ñëwoon fii ci Darou Salaam dëkku maam seex Anta bi nga xam ne Serigne Touba moo ko fàttali muy dëkk boo xam ne bi ñu koy sant bëgg jàmm tax ñu sanc ko ndax sëñ bi daa nekkoon Mbàkke Bawal. nekk faak lenn ci ay taalibeem te man naa ci tudd maam Cheikh Ibrahima Fall boobu ma nga foon ku xam na ni daana ko toog maam Cheikh Ibrahima Fall ak bëggum bëgg sëñ bi ak orma jum ko jox taxoon ba ba bu sëñ bi masaa julli am yu muy def yooyu nag naqari ndax nangu loon ko jiite sëñ bi bam mu naqaree waa dëkk ba nag ñun dañuy toxu sëñ bi ne déedéet ñaar toxu moo gën a yomb ab dëkk toxu kon bëgg jàmm moo andi woon sëñ bi fii tuddi dëkk bi tam Daaru Salaam ko nag sëñ Cheikh sëñ sëñ Cheikh Cheikh Sidi Mokhtar ñu koy woowee sëñ Gaawaan boobu boole kook juróom-ñeenti juróom boole ko mu téeméer leen mu jox ko ak dëkk bi kon dañuy wax yi tax a sëñ gaan moo ko jëkkaam te taxul mu beew ndax moo jëkk a seex moo jëkk am xaalis yoonu murit waaye teewu la muy bokk bokk ak sëñ bi dafa jaay njuleel ga dafa jaay bokk ga jëndee ko taalibe kon ku ne xam na ne fii dëkku jàmm la waaye dëkku taalibe la jàmm nag ku ko bëgg da nga koy yéene di ko wax di ko jëf in wi waxul wax xaal boo bëggee jàmm da nga yéene jàmm di wax jàmm di jëf jàmm sëñ gaaw naa daa daa def yooyu ba noppi nag dëkk ci dalal jàmm kërub jàmm moo taxoon taawam ba sëñ Modou Mamoun ku daan dox ci yooyu la ku daan yëngu ci yooyu la ndax sëñ Touba defar defar ko mutlaq lépp ci lépp nekk ci moom moo ko ci def mu doon nit ko bëgg jàmm jaxasoo nag sunu wajur lool nag sëñ Abdou Lahat fu dëkk sëñ am na fa kër kon nag buñ dee màggale sëñ gaawaan ci dëkk bii nga xam ne sëñ Modou Mamoun moo ko moom kon jekk na ci noonu ñu yendu fi fanaan fi ndax na sëñ Gaawan demee nag sëñ Touba waaye na sëñ muut Mamoun demee nag sëñ Touba kon ñëw nañ siyaare njabootu sëñ Gaawan gépp waaye njabootu sëñ Modou Mamoun gépp nga xam ne fii suñ kër la suñu dëkk suñu dëkk waaju la suñu dëkkub sëñ la sëñ Gaawan nag ni ma la waxee ñaar yi tax a beew da ko amoon muy xaalis ak alal waaye taxut mu dind la mu soppi ci taalibeem dara mm-hmm. léegi nag ndaw yi jamono yi ku ci yor dara dara dara sa mag gi la ko defal waaye sa baay bi la ko defal da nga koy def moroom dir ko mbagg loolu nag du la am solo kon delloo si njàngum sëñ gaawan mënta ñàkk jamono ji ak bëgg ak jàmmam ak bëggu wuyoom ak teg tànkam ci li sëñ Tuubaa bëggoon leetar bii ma jàng léegi rek tam bind ko ay taalibeem dafa leeral ñëpp fi mu nekk li yàlla bëgg la nekk yonte bëgg la nekk ku ci nekkul jotu ko dara kon layal na boppam nee na ku deful yi daal teqali ko yow kon kum jur kum yar ku ko yaakaar te newoo ci lii yaa fa des waaye sëñ gaan moom ni wax leer na teqali ko na ak yow te mu wax ci lettre bi mooy li sëñ Tuubaa bëggoon mooy li yàlla bëggoon mooy li yonte bëggoon ndax dañu tànkam ci loolu la ko teg kon sëñ gaan wàcc na sëñ Muud Maamun wàcc na njaboot sëñ gaan wàcc na nun ñi fi des nag di ko tudd ñu koy tudd ñoo war la sëñ bi nekkoon ñu ciy dox suñ kemt lay kàttan liñ ci mën a def ñu def ko liñ ci mën yéene ko bu ko defee yàlla dañu jàppale bañ àgg bañ fekk si ko bëgg nañ koo gis tey bëgg nañ koo gis ëllëg te buñ jëru fi mu jaar duñ ko gis kon nag li ñuy may ndimbal ñu gis ko donte fam jaar mu mënuñu faa jaar mooy lam bëgg na bu ko lam bañu bañ di ko bañ wa man yaxruj min bayti muhajiran ilallaahi wa rasulihi summa yudrikul mawt faqad waqa ajruhu alallah ku bëgg a dem dara seqal coon wi àgg nga kon li bëggoon nañ koy bëgg li mu nañ koy bañ réew mi nag dañoo toll ci ay jafeñ-jafeñ ci xëccoo ak féewaloo ak mbaloo te muy liggéeyu seytaane dong dong dong waaye ñaar ñi wut àdduna te xulawuñ am na ci ko wax dëgg waaye ñaar ñi wut Euh, yàlla itam di xuloo am na ci kooku dëgg ñii nag ñoom ñu ngi xuloo ko xëccoo waaye damaa yaakaar ne liy indi jàmm bokk na ci wàññi jàpp bi wàññi tëj bi ndax la simple laa waxoon njiitu réew li fi li fi newoon ko soxot nga ku ñàkk njariñ ko bañ Sëñ Tuubaa kon soxot ni ko dëkk boo gis ni gayndee gën a soxot ci kaw suuf si gënoon fii ñëppay daw dugg ci biir néeg yi waaye dañ gënaat te bu ñu génn ngànnaay la ñu génn waaye kon boo boo soxatee dañ ragal waaye dañ la fexeel gaynde moom ak bukki bu ñëwee ci kër ñëppay daw dugg ci biir néeg yi waaye bu ñu dégg fetal la ñuy génne wala jaasi bu ñëwee ci kawam la ñuy def faagagal ko dëkk boo gis nit ñi daw jëm fa njëriñ a tax foo gis nit ñi bàyyi ko ñàkk njëriñ a tax soo amee njëriñ nit ñi dañ la bëgg soo ñàkkee njëriñ nit ñi dañ la ba bañ sëñ Tuubaa nag ñaar rek la ci biir ak ci biti soo ko bañee ci biti xaru la soo ko bañee ci biir poste la la lay lay rey nga dee ki ñuy màggal nag dafa bëggoon sëñ Tuubaa ci biir bëgg ko ci biti ku ne xam ne waa Daaru saam ak addiya li ñuy joxe ci addiya kenn joxewu ko la ma waxoon sëñ Tuubaa dafa jàppandaloo sëñ gaawaan alal ak mbooloo kuy tiitu loolu ngay tiituroo te am na ko moo ko ëppale ñëpp waaye ci sariha la teg tànkam ci sunna la teg tànkam ci bëgg ak sëñ Tuubaa la teg tànkam te gis naa njabootam gi ñi ma xam te jaaxasoom ñu bari foofu rek lañ nekk kon mujjewul puso bi mu réer te du du mujj puso bi mu réer mukk mukk mukk euh, soo bëggee suñu borom yëkkati la dangay ngay soo bëggee suñu borom toroxal la da ngay da ngay kawe kawe la boo doonee taalibaal ci kaw nga jëm boo doonee nag bew wala nga ree iblis moom ñu gis daa kawe woon rek da doon kawe kaw la bañ ko sujjootloo dafa lànk ndax rëy istakbar am ko tamit saay dafa dafa dafa dafa dafa réyoon moo tax nangu di sot sun borom alak ko Seydina Mamad mi nga xam ne moo gën ñëpp moo gënoon suufe ñëpp daan dem ca marché duggi daan sàmm ay xar di jaay te teew ko nekk yonente bi yàlla te moo gën ci yonente yi kon bu am na cër bu la ko yàlla joxee bu ko gis bu ko xool bu ko yëpp xamal soon borom daloo ko baaxee nga doyloo ko ñu sëñ Tuubaa def doon tali bi bëgg bëggul dara ndax wax na ko bëggul kër bëggul alal bëggul doom bi muy toog bi muy tagg yonent bi sax tëgg ko ngir dara bëgg bëgg jëmm ji rek moo tax xubbu saat yi rek moo tax mu def ko kon nag sëñ Gaawaan mi ñuy wotal màggal gi daal nan bëgg jëmam joojee nan roy jëfam joojee nañ xool fa taam ba nekkoon ak lam bëggoon ak lam bañoon ñu bëggale ko bañ dëkk bi kat day yokk ba faaw firnde si jumaa ji sëñ Gaawaan bëggoon na ko sëñ Mourou Bamane bëggoon na ko waaye am caata ma ko def kooku daal liggéey bu nangu dong lay wane. liggéey bu nangu dong lay wane sëñ Gaawaan nee na fi defu ko waaye nag bu ko sëñ Abo def ali sëñ Gaawaan na ko def ndax mbooloom sëñ Gaawaan la yor bu ko defee tam mbooloom sëñ Mourou Bamane la ko def ndax buñ ko dee tudd wala ñu koy teral wala ñu koy ñoo ñoo tax kon nag. yàlla teral na ko ci barke waajuram teral njaboot gépp kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant di la gërëm lii ñu bokk tanga boole yi kàddu yi ñu ci dañuy jéem rek waaye xaq sëñ gaan mënuñu koo jox ab doyum xamuñu ko waaye bëgg nag ak safoo ko safoo ak safoo guñ safoo sëñ Muudu Mamoun mi nga xam ne waaye dañ na ko gànnaar ànd ak sëñ bi ba sëñ bi waxoon ni ndaw la amul bàkkaar loolu rek dafa doyoon sëkk ab cër kon nag su bisam ñëwee fii daa ni moo ko sos ci kanam sëñ gaaw sëñ Tuubaa fi gane si sëñ Gaawaan ci gàttal ñu fa jàpp bis boobee di ko màggal te sëñ Modou Ba man taxe ko ànd ko ci ndigalu sëñ Fall yaakaar naa bu ma juumulee kon bu bis boobu ñëwee ñu boole ci dañuy sant yàlla ñu bokk ci ba noppi ñëw fii nga yëkkati lu kàddu soññ loo ñu mbooloo ñoom fàttali ñëw sëñ Gaawaan dañ sant ci gërëm di ñaan suñu borom defal la ndam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf